Euh, jërëjëf mbokk yi seetaan déglu mbégte am ñu daal di dellusiwaat ak yéen wan leen ay produit yoo xam ni lu jëm ci wàllu fenugrec fenugrec bi nag fi ñuy tàmbalee mooy li nga xam ne moo di graine fenugrec am nañu graine fenugrec deux cent cinquante grammes nga mën ko am fii ci cabinet bio nañu li nga xam ne moo di poudre fenugrec moom tamit deux cent cinquante grammes nga daal di ko mën a am fii ci cabinet Biorahma 1500. am nañu tamit li nga xam ne moo di huile fenugrec bio 100 ml nga daal di ko mën a am 3000 francs ci cabinet Biorahma. am nañu tamit li nga xam ne moo di sirop fenugrec nga daal ko mën a am fii ci cabinet nañu crème mix pour ñi nga xam ne dañuy utiliser ci yenn partie intime li nga xam ne moo di crème intime bi am nañ ko ci cabinet Biorahma muy jar kon yow mi seetaan ak déglu te ittewoo lu jëm ci wàllu fenugrec rek am nañu li nga xam ne moo di poudre bi am nañu li nga xam ne moo di graine bi am nañu li nga xam ne moo di sirop bi am nañu li nga xam ne moo di huile bi amit tamit li nga xam ne moo di crème bi jërëjëf